asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi 24 septembre 2020 ñëw ak yéen ci yëglikaay suñu lamb la xëy tey doore ko mel ni ki yëglikaay bi di suñu lamb tey fa mu xëy génn fenn la maanaam daal assises yi nga xam ne amoon na ci wàllum lamb ci atum 2018 la yëglikaay bi xëy tey ñëw ñëwal ñu ci ci benn mbir boo xam ne nii waxoon nañ ko fa jëmoon ci mbiru manaat say ak seen ay doxalin ak na nga xam ne ni noonu la ñu war a nekkee ci lamb ji yëglikaay bi nag nee na yañ fa jëloon yëpp muy ñeenti mbir yoo xam ne daal tànnoon nañ ko fa nee na ba biig ca ngoon dañ koo jéegooyo lañ ko mujj dugal bàyyi ko fa moo tax yëglikaay bi xëy tey wan Basiru Baab ma nga xam ne mooy seen président ñu manaat sa yëre mbër yi ci xëtawu njëkku yëglikaay bi di suñu làmb xam ne ñooy manaat seeru mbër bi di suñu xëy ñëw tey wax nu ko leneen loo xam ne nii yëglikaay bi ñëw na ci wala keneen ku mu ñëwate tey muy Mohamed Ndaw Tyson Tyson nag ak i mbiram ak ay sondage yoo xam ne sunu làmb nga koy def boobu ba tey jëmale jëmale ko ci moom ak njiital la nga xam ne moo di seen seba ña ca ànd ak ña ca àndul mu mel ni ki nag Kaolack ga nga xam ne fa la tey fekk baax moom micro ba fa sunu làmb def moo di làmb ji am na koo xam ne ba ci mbir mooma sànni na ci kàddoom muy Moussa Ndiaye bii président école de Balla Gaye Moussa nag moom jàpp na ne daal la maanaam daal nekk na koo xam ne nii war na mën a jiite la nga xam ne nii moom moo di CNG bi doxal ko loolu la ka nga xam ne moo di Moussa Ndiaye xëy wax ci yëglikaay bi nga xam ne moo di suñu làmb maalik Ngom moom nekk secretaire général la nga xam ne nii moom mooy CCA maanaam daal ñu wàllum arbitre ya daal moom maalik Ngom xëy na tey di wax di wax ne daal la nga xam ne nii moom la ñuy laaj wala ñuy ñaan daal mooy li nga xam ne nii mooy seen ay suspension yi nga xam ne moom lañ leen tegoon ñu teggi ko ba mu set wecc jàpp na ne moom Malick Ngom tamit ñoom ak waa CNG waaye daal sanction yi nga xam ne teg nañ leen ko wala loo ci daal lañ leen tegoon lañ leen laloon ci seen kaw nan ko lalli ba mu set wecc ko defee mbir ya di dox ñeneen ñoo xam ne ni moom dañoo bëgg a doxal boobu seen ab écrit muy waa jàmbaar Wrestling Academy daa mel ni ki daal manqué wu ñu ay mbir yoo xam ne daal Sénégal ñu ngi leen di fekk si ndax yéeglikaay bi di sunu làmb nee a sok ousa ne ñu ngi leen fay xaar muy Bruce Lee ma nekkoon Fass ak Franc ma nga xam ne moo nekkoon ca Dóor ja académie jàmbaar nga xam ne ni daal moo nekk ca Parcelles te Papa Sow jiite ko moom maanaam daal gaa yaa ngay fàq yëglikaay bi ni sunu làmb xëy ñëw tey wax nu ko leneen loo xam ne yëglikaay bi xëy na tey wax nu ko muy école de Pape ba nga xam ne ni daal maanaam lañ jot a def ren daal soo bëggee dégg-dégg taxu koo neex de quatre victoire cinq défaites la ñu jot a am ren ci saison bi nga xam ne nii moom la corona bi ñëw taxawal ko yëglikaay bi nekk nga xam ne nii moom moo di ka nga xam ne moo di Gabar Singh moom di leader ba moom daal ay saison balance moo ko sonal marle ma topp ca ginnaawam tamit maanaam moom itam combat daal xaw na koo gëj a am dal di bëre Pape Thiam numéro 2 itam di ab xale boo xam ne fa la ne moom ay defet moo xaw a yàq ay affaire am wala moo mettil ay mbiram waaye moustique numéro 2 ak ka nga xam ne nii mooy pic ak Afrique pub moom ñoom daa mel ni ay xale lañ yoo xam ne daal ñu ngay doxal Iba Dieng ma leen di tàggat nag moom nee na seen problème benn dong la maanaam daal seen mbër yu mag yi nga xam ne amuñu combat nee na lii moom mooy seen jafe-jafe yëglikaay bi di suñu làmb xëy ñëw tey wax nu lu mel ni ki noonu ba tey bu ñu jógee foofu nag wala boog bu ñu fa desee dañuy ñëw ci loo xam ne nii daal li am ba des daal mooy parisien ma nga xam ne moo nekk ca Fass moom daal Cheikh bu Thiès la teg ay bëtam mu mel ni ki daal kook daal jàpp ne war na mën a defante ak moom bëre ak moom yëglikaay bi di sunu làmb xëy yow wax nu lu mel ni ki noonu ba tey buñ fa jógee dañuy dem nga fa nga xam ne ni nag moo di l'observateur ak fa nga xam ne moo di record bu fekkente ne yëgle kaay bi di lobs la moom lam nu xëy xamal daal jàppal nee na ki nga xam ne nii moo di Balla Gaye numéro 2 daa mel ni nag xaar doon xaar daal ci diggante ma Gris Bordeaux ni moo mujj a ba far nag mu nga xam ne ni daal fa la mën a wala fa mu jàpp ne daal mbir war na faa mën a yem ndax xaar ba yàgg na moo tax yëglikaay bi di l'observateur xamal nañu ne nag ka ko yore di agent moom di Aziz Ndiaye tegal na ki nga xam ne ni moo di Gaston Mbengue ab ultimatum foo xam ne daal mbir su fa yeggee moom fa la nuy taxaw l' nag moo xëy ñëw tey wax nu ko rakki l' observateur moom di record lam nu xamal daa mel ni bokkul ak loola ndax daal daal nee na ba tey mu ngay fidèle maanaam di séeré ci digganteem ak Gaston Mbengue maanaam daal mu ngi koy xaar di gën a jàpp la nga xam ne nii moom la ko waxoon record a xëy ñëw wax nu lu mel ni ki noonu mu mel ni ki nag am na daje boo xam ne nii daal wala ay activités yoo xam ne des na ko commencé waat mu jëm ci wàllum CNC bi jàppal yëglikaay bi gagné na le 29 septembre lay commencé fa nga xam ne ni moo di ci arène nationale ay daje yàlla lu jëm ci wàllum CNG yëglikaay baa xëy ñëw tey wax nu lu mel ni ki non non ba tey bu ñu continuer ci record record moom daa ñëw ci écrit bi nga xam ne nii moom moo di dóor dóoraat yëglikaay bi nag la mu jàpp daal nee na ki nga xam ne nii moo di garga numéro 2 dem na góor a soog tamit daa mel ni ki dem na mu mel ni ki nag yëglikaay bi nee na tamit ak retraite sos moo tax yëglikaay bi jàpp ne day est ce que dóor dóoraat gii la fa nar a des nar naa bari yëglikaay baa xëy ñëw tey samp boobu laaj leneen loo xam ne nii yëglikaay bi ñëw na ci muy ab daje boo xam ne daal wàllu simple bi ñoo ko war a def dimanche record xëy ñëw tey di ko wax mburum wala mi ngi xam ne ne mbërum simple moo xam ne ne daal Pape Ndiaye soo ko ne lan koy wax moom ren lam jot a gañe léegi li ba xëy ñëw wax na ko mu mel na ko yëg li kaay ne na un na ko ak ñeenti a marqué nii am na ko fa nga bi na tey ñëw wan nag mu ngay waajal saison bi nga xam ne moom la mu jëm jàpp na ne daal lépp mu mën a def ngir saison bii nu jëm daal mu gën a wane boppam moom Papa Ndiaye loola bu keroogee moom dana ca taxaw tey itam mu ngi koy waajal bu baax a baax a baax loolu la Papa Ndiaye sukku ne xëy tey wax ci yëglikaay ba nga xam ne moo di record yàgg maar asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk ñu sifri ci Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar comme ni ngeen ko xamee nag ginnaaw revue de l'arène bi ñu ñëw ak yéen ci wax suñu xalaat wala suñu jàngat ci li nga xam ne ni daal moo fi ñëw tey ci yëglikaay yi bu dee suñu làmb ko xamee rek chaque jour xam nga tey dafa ñëw ci Aziz yoo xam ne amoon na fi atum 2018 Azizu Lamba mu mel ni mbir yooyu nag ba muy am mbiru manaat say am na lu ñu ci waxoon ñeenti mbir yoo xam ne daal waxoon nañ ko fi di ay recommandation waaye yëglikaay bi ne daal bañ ko waxee bañ fa jógee maanaam la bay wéy mbuus maanaam fa lañ jaare fàtte ko mel ni ki nag loolu lépp yaakaar naa su amee wala li koy indi lenn rek la war a mën a doon mooy xëy na tey ay nit suñ toogee génnee waxante ni lii war nañ ko mën a doxal war nañ ko mën a doxal dafay am suivi maanaam dañ koy topp waaye nag bu fekkente ne ah, wax la nii rek xam nga jataay yi neex ñu wax fii wax faa wax faa bu ñu fa jógee fàtte ko loolu defe naa du luy doxal te problème yi am ci réew mi waxuma sax làmb ji mais bëri na fu ay problème di am ci réew mi mépp mépp mépp loolu di moo koy faral di indi maanaam def ay séminaire def ay assises dépassé xaalis nangam sàngam après su ñu fa jógee maanaam mel ni lañ fa waxante woon daal jël nañ kayit ya lem ba mu jëkk dugal ci tiroir yi ku ne dem loolu nag defe naa du doxal ay mbir mbir suñ toogee waxante ko nii lañ war a doxal yi lañ war a doxale def ci ay fan dépassé ci ay million waxtaan ci ba tënk ko ci ay kayit pour man suñ ci jógee la gën moo ñu jëm koo doxal ndax la tax ñu toogoon jataay ba ku ne wax defe naa loolu war na am suivi war na mën a am ay résultats yoo xam ne ni moo cay topp kon loolu la yëglikaay bi xëy ñëw tey indil ñu ko ci xëtam mu njëkk indil ñu Basiru Baabu ba tey mbir yooyu duñ ko sori ndax microsondage bu yëglikaay bi defati ca Saalum maanaam Kaolack ci mbirum Tyson profilam ak CNC mu mel ni ñuy wax ñëpp dañu d'accord ne moom war na ko mën a jiite ba tey li ma doon wax laa siy wax rek maanaam li ci am mooy muy Tyson muy Kéba muy zoo technique muy keneen ak keneen muy nas ñoom ñi ñu fi di jot a dégg ñëpp seen ay tur ngir CNC kum a doon dama naan bu fekkente ne yow sa conscience sa xam-xam ne la nga war a mën a jiite xam nga yaa ñu gën a xam waaw net li géntug jàmbur moom day daal di métti waaye li am da des daal waa Kaolack moom gis nañ ne tey seen war na mën a jiite ah loolu a yore lii am a jiite ah li ci kanam la ba tey rek rawul ay bët Moussa Ndiaye moom daa dëggal la waa Kaolack wax Moussa Ndiaye mooy président école de lutte Balla Gaye moom ne ne tey seen war na mën a jiite profil baax na ba tey loolu itam defe naa ki wax muy Moussa Ndiaye du n'importe quelle personne ci làmb parce que école de lutte ku ko jiite defe naa a ko rek bu ñu xoolee école baag mbër ya fa nekk lépp lépp kon defe naa moom bu gisee ne Tyson profil baax na am na fu ko teg am na ci yaakaar ju am ci moom kon daal li ñuy wax daal ñun mooy muy Tyson ku mu si mën a doon rek képp kiy na doon ki ne ni mooy gën ci làmb loolu yëglikaay baa xëy ñëw wax nu ko Malick Ngom tamit mi nga xam euh, moom moo leen jiite moom seen secrétaire général sax du moins moom wax na daal nekk seen aj yooyu wala li ñu leen teg la wax ñu teggi ko yaa ngi dégg ba ca des tamit jàpp na ni ñoo seen see amuñu problème waaw dañ naan daal li ci am ba des mooy muy Malick Ngom ay Sitor hmm, ay Babacar Diop ak ay Dramé ñooñu defe naa ne wax dëgg yàlla ay icône lañ tey ci làmb ci côté bi ñu féete muy mbirum arbitrage waaw euh, xuloo nag mënta ñàkk parce que olof a ko wax bañ ak ñu dëkk des fois ñu laale laale bu metti waaye nag du tere nañu waxtaan xool li war a mën a nekk ñu def ko parce que ñoom dañoo bokk ci làmb te wax dëgg yàlla itam marqué nañ seen empreinte par rapport ak li ñuy def waaw kon nag moo xam dañuy recommander maanaam dañ fiy tegaat ñi fi nekkoon wala beneen équipe bay ñëw équipe buy ñëw daal war nañu dinañu ñu ngi ñaan ñun su keroogee nga waxtaan ak arbitre yooyu ñu xool li nga xam ne ni mooy jafe yi ñu jéem ko régler pour que ñu mën a continuer ndax xuloo bi moom wala defante bi du bëri njëriñ non non non loolu gisuñu man gisuma bokk gisuma lu mel ni ki noonu bokk nekk dina indi njëriñ ba tey bu ñu continuer dañuy ñëw fi nga xam ne nag moom mooy jàmbaar wrestling académie di écrit bu bees bu ñu sanc ca parcelle te ku ne xam ne ni Papa Sow moo ko jiite mbër yi nga xam ne nag ñu ngi fay dem boobu ba tey ah am na ñu fa dem am na ñu ñuy xaar yëglikaay bi jàpp na ne Garga numéro 2 dem na fa Gora Sock Ousa numéro 2 ak Batika ñuy xaar ki nga xam ne léegi mooy Franc ak Brice Lee nag muy loo xam ne ni daal a ah, mbër mu ne am nga droit nekk sécurité ba mu neex la nga jàpp ne tey war nga mën a toxu dem feneen bu fekkente ne matale nga sart ya nga xam moom lañ la doon laaj defe ne kon defe loolu moo am jàmbaar Wrestling bu bees bu ñu sanc yàggul dara mais li ñu ci wax rek mooy jóge ci écurie dem ci écurie bi am na importance xëy na pour gën a yokk la pour gën a relever défi la waaye li lay gunge nag mooy yow sa wàllu bopp yow miy dem nga xam ne am ngay qualité pour nekk mbër ginnaaw bi nga ko amee ba pare nag lii tax qualité yooyu nga mën ko exploiter mooy ngay nangu di entraîner et puis tam di kon di nangu di wékku ca sarte écurie ba waaye écurie boo mën a ne ñu tënk fa ay sarte sarte tënku woo ca doo entraîner normal itam siri woo ci li ngay def it ak foo mën nga dajal écurie Sénégal yëpp mais tax nga dégg daal kon daal li leen di wax mooy maanaam ñu fay dem yàlla na leen jig jàmm yaa ngi dégg waaye nag base ba daal mooy di entraîner te tënku ca la nga xam ne ni mooy sarte écrit ba nga xam ne mooy jàmbaar wrestling académie ak beneen écrit bu mu mën a doon waaye toxu tooxu noonu rek moom waaw defe naa ne loolu da ciy gën a am importance daal pour mu amal la njariñ yaa ngi dégg bu nu continuer ba tey euh, ñëw ci la nga xam ne ni moom mooy école de lutte Pape Kane ñoom itam ak seen ay combat ren 4 victoire 5 défaite lañ jot a def mu mel ni écrit boo xam ne combat yi barul tamit boo xoolee résultat bi mën nañ ne du bu baax parce que 4 victoire ak 5 défaite moom lañ ah di ci ñu mel ni mbër bu mel ni gabar si nañ ko gis mu bëre yaa dégg moom xaw na gëj a bëre marle xëy na bi mu mujjee bëre yaagul mais dafet la ci jëlee yaa ngi dégg mu diggante mag jéen kay dafa am defet ñëw jëlaat booy bawal amaat fa beneen defet muy loo xam ne nii ah xaw na ko téye Pape Thiam tamit am lu mel noonu xaw na ko arrivé ndax ci defet la nekk ñuy ay xale yoo xam ne nag defe naa ne buñ liggéeyee concentré war nañ mën dépassé niveau bi nga xam ne nii fa lañ nekk ndax école la boo xam ne nii boo am am solo nekk ca Géejawaay ñu ciy ñaanal wuy ki ko sañcoon muy Pape Kane yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko ba tey bu ci la ñu xamane daal xaaram ci diggante ak Gaston Mbengue daa mel ni joxe na maanaam daal fa mu ca mën a xaar ba xam ni mu nga bëgg a xàddi ni ko l'obs waxee ci bindam mu mel ni ki nag moo tax xamal nañu daal Aziz Ndiaye jox na Gaston Mbengue ultimatum mu mel ni loolu nag li ñu ciy jàngate mooy xay na kon euh, combat ba bañ ko annoncé ak léegi ñu ne Gris Bordeaux jot na nangam ba mu coofee Gaston Mbengue te ñu ne ah, Balla jotagul xëy na kon loolaa waral wax ji am bu fekkente ne wax ji am na ni ko L'Obs bindee li ñu ciy wax nag mooy Gaston nga xam ma nga xam ne moo déclaré combat ba ñu ngi ñaan yàlla rek mu mën ko eggale ak jàmm te mu jik ko loolu lañ ko ñaan di ko di ñaanal promoteur bu ne la nga sum nga yeggale ko ba tey buñ fa jógee dem ci L'Observateur fa nga xam ne nii sax mooy record record di di raqi L'Observateur ndax lépp groupe euh, Futurs la moom nag la ñoo ñu bind ak li mu bind daa mel ni xaw na am benn différence ndax moom la mu bind daal daa mel ni Balla ba tey mu ngay xaar di gën a dëggu ci diggante ma Gaston Mbengue maanaam mu ngi koy xaar di gën a wan ne ko daal moom lay bëreel loolu la ñu record xëy xamal record ak L'Obs nag ñoo bokk kër bokk kilifa waaye nag ku ci nekk say gëstu ak say ay sources ya ngay am yaa ngi dégg ñuy muy loo xam ne ni daal liñ ciy xam nag mooy que diggante Gaston Mbengue ak Aziz ak Balla damaa yaakaar ne ah est-ce bu bëri war na fa mën am ba ultimatum war fa mën a am yaakaaruma ko waaye nag newu ma amul waa li am solo mooy ñi bind L'Obs ay professionnel lañ ci li ñuy def record wax yi noppi ku ci ne la nga bind rek ko teg ci xibaar ko teg ba waaw reprise su activité sportive yi mu mel ni CNC nag arène nationale la ñu war a dem pour pour le 29 octobre loolu nag xam naa ne ay waxtaan la xool mbir nu muy demee mel ni na lay ubbi nangam sax mel ni gars yi namm nañ tuus namm nañ xam nga songoo ba nang nañu namm nañ mbappat yi waaye xëy na yàlla mi nga xam ne moom mooy tege léegi rek ci kàttanu yàlla mu indiwaat yëpp affaire yi mën a demaat ci normal stade bu Zos mu mel ni foofa itam la fa am mooy ay départ Zos ku ne xam na ne arrêté woon na carrière am donte ay atam jeexu kon ki nga xam ne mooy Garga 2 dem na jàmbaar Wrestling góor a soog noonu mu mel ni kon écrit ba ah daa mel ni vide la fay yëglikaay bi xalaat ne est-ce que du fa am wala mu am fa waaw loolu nag dama naan du du du ci mën na bañ a vide xëy nag ñooñu comme ci écrit lañ leen xamee fa la ñu ba ñu waa làmb xam leen. nee na bu ñu fa dogoon dana gën a baax ci écrit bi waaye nag xëy na la tax ñu toxu ñoom ñoo ko xam am ñu fa des xale ya fa des itam dañuy liggéey rek ak ña fa ak ak ña fa nekk ndax garga mboose mu nga fa booy fay bu yàggul fekk si na ko fa te defe naa loolu lépp bu ñu liggéeyee mën nañu am résultat bu baax ki nga xam ne mooy Pape Ndiaye Soxone Pape Ndiaye ne moom mburum simple la moom ci gala ren yi boo xoolee six gala la am am na ci lu toll ci 1 million 670 mille francs ak ñeenti nag loolu la jot a gagné nee nag li ko gën a marqué mooy trophée bi mu am Ibamar waaw Ibamar moom daa nekk foo xam ne nii ah wax dëgg yàlla boo fa gagné trophée dina marqué dina la marqué parce li tax mooy euh, fu maanaam dafa nekk ci lieu yu ñuy bëree simple bokk na ci lieu yoo xam ne yu ñu gën a ci bëree simple bi ndax stade bi ni mu mel ak engouement bi muy àndal ak jàppal bàyyi ak trophée yi ñu fay teg des fois mise yu am doole yi ñu fay teg xam na loolu ma marqué ko waaw nee na tamit dina defaat lépp lu mu man pour saison prochaine mu gën a wane mën a mu gën a mën wane boppam moom Papa loolu la wax mu mel ne kii nag lambi simple ji mu ngi dox rek yaa ngi dégg ba tax na sax amateur wala waa waalit simple boobu am nañ benn conclave dimanche la ñu yëglekaay bi record xëy xamal waaw mu mel ni kon daal loolu moo fi ñëwoon tey ci yëglekaay yi moo xam sunu làmb la moo xam record la moo xam l'observateur la ñu nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi def 100 pour cent làmb waaw nuyu nañ presse bi yëpp mais rawate nag ñi def 100 pour cent ram bu ñu ko waxee suñu xel lay dem ci Lutte TV suñu xel dem ci Kewel Info bawal xam nga bawal TV yooyu yëpp ay kii la ñoo xam ne ni arène bi ñu ngi def làmb di leen ñaanal jàmm di nuyu ña nekk ñëpp moo xam Lamine Seck su ma rak su ma seex sama xarit ca Lutte TV pël bu rafet bawal TV xam nga euh, Thier ca Kewel Info waaw ak ñi nga xam ne nii ñoom mooy Modou Anta bu arène bi ak waa Wasaare tamit du mu leen fàtte ñoom Basir ñoom Mm-hmm. ah lii ñoom faat Fatma Dia ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm nuyu suñu grand frère Bour Guéwél ak Madoum Diouf borom impro di nuyu képp nga xam ne daal yaa ngi ñu suivre di la ñaanal jàmm waaye nag mm-hmm, yàgg maar xam nga fa ne luy <laughs> sama digganteeg Lirou Diane mooy coow li ndax di nga màggale ga ma ko laaj mu bëgg maa dóor waaye kenn du Lirou Diane Lirou daal loolu laa ko laaj mais li ma jaaxal tamit ci mbiru Lirou Diane mooy sàccam gi dem Lirou ne ne ma Youssou Ndoye xanaa yëgul sama sàcc gi ma ne ko Lirou sa sàcc lu ci sàcc nañ la kay wala da ngaa bëgg boog Youssou Ndoye def dara ci sàcc gi bee doy na waar moo tax Youssou ne ma xanaa liiru <laughs> liiru woote day wallu day woote wallu Youssou daal laa mel ni liiru wallu lay woote parce que sàcc gi moom doy na waar di nuyu tamit sunu xarit sunu ay sëriñ muy see Ablaye Diop xaas tey ku ne xam ne ne ci lay mari ak sumbulu bàcc li ñu ñaan yàlla sëy boobu yàlla nañ ko commencé bi rahmaani rahim yàlla defal leen ci lu kawe soon njort ñu am ci ndam barke yonent bi ndax nag mbir mu mu mën a doon maar saa ciy dugg ñi dañ mën naa nekk ñi ne mënta ne waaye ñun la ñuy ñaan mu ne te doon lu gën parce que nag ñoom ñaan ñëpp ay doomi réew mi lañ ay gor lañu ay nit lañu yoo xam ne nii defe naa duñu mën a def lu dul ñaanal leen te ku ci ne la ngay yëngutu yaa ngi bay sawaar di ñu itam Serigne Cissé suñu xarit suñu soppee di ñaanal ñëpp jàmm di wax ne ko yàgg maar yàlla na jàmm yàgg Sénégal sama rakk nag suma xarit Ibrahima Diom nga xamal ko sës ci man rek day def anniversaire samedi kon ma ngi koy anticiper di ko wax happy birthday to you di ko ñaan yàlla gudd fan ak wér-gu-yaram di ñaan yàlla mu réussir yi nga xam ne nii moom lay def muy ay stage am ak yu mel ni ki noonu di nuyu ñëpp di saan ñëpp ñaan ñëpp jàmm yàgg